lan moo gën a poussé pour nga dellu si. gis sama rakk yi nag. Hmm. gis sama rakk yi di ci làmb. nga hmm. xam ne man dama bokk ci làmb. donc sax mën am góorgóorlu. man bëriwuma pour man. Hmm. waaye damay bëri bu gën a bu bëri ngir équipe. su ma neexoon tey bu ma commencé ñëw Italie wàcc samay bagages ñëw ànd ak ak coach. maanaam ni ma a woon ni ma ni ma bàyyee woon noonu laa melaat ba léegi. ma ci dara changé wu ma. italien est-ce que dina yor forme bi. maa ngi jënd soxor ba tey wutuma graisse de. Hmm. doole laay war ak physique. Hmm. non ba pare ak doole lay xalaat boo xamante ni hmm. moo tax dafa toog ko xalaat tax mu takk ay bagaasam ñëwaat sa diggante kan sama diggante ban mbër Yékini Junior moo ma daaloon moo ma njëkk a jox sama defet jàppalu ma ko dara waaye combat boobu dama xam man lan moo ma xañoon super jamono ndax combat cinq jours kenn mënu ci daan kenn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 des na samay coach la des samay entraîneur d'espoir si roog énergie tey bu ñu ma super jëmoon takkal ngemb li bilaa wala ma takkal ngemb li soo dégg buñ ko bëggee luñ ko bëgg luñ ko bëgg man samay supporter samay entraîneur bu ñëw super jamono super jamono takkal ngemb ma takkal ngemb ñëw wane sam bopp mais super est-ce que super mu mënoon bëri ma am caay-caay nga xajam ba tey mi ngi yëg boppam ni fa la ma nga fa ba léegi asampion ah, man maa ngi lay seetaan Instagram ma nga fa Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye super mu xajamoon mënoon a bëree soxor kun ko day super doon nelaw ndax super doon en personne psychologiquement mi super na woon ba léegi booy foofu baax na ay jël jëlal ma ko laa jël mbor bi jëlal mbor bi jëlal mbor bi tey leen seen micro ku aca aca mbër aca daan na champion bu nekk fii sànq wax nañ ko léegi sànq wax nañ ko léegi seen diggante nga xam ne mooy moo daan dabu Thiès combat la boo xam ne yaakaar naa ku tëj tëj combat waaye li ma la laaj laay delluwaat super ma woon xajam mën a am caay-caayu mbër psychologiquement est-ce que ba tey super jamono jàpp na ni ba tey lëkkaloo mi ko fa bilaay naa la ko woon barki Serigne Saliou bu dee yàlla mi ngi may billaahi wallaahi naa ko woon naa ko woon waa lamb barki Serigne Saliou naa ko woon waa lamb biyee ñëw fii entraîné yombul tagg biyee ñëw nekk li ma li ma ñàkkul ci lamb laa bëgg yàlla xam na koy may li ma mooy liggéey lu bari jege say waaju jege bu avance bu avance woon tey pare nga pour. damaa nekk taalibi sëñ Saliou. ñoo ko rëccu de. te la. Amady lamb saayir am na ci. waaye moo doon tey moo tax ma ñàkk lu bëri ci lamb ma. te taalib boobu naa ko naa ko dama ko wane biir géew. taalib boobu billaay wala dama ko wane biir géew. mais su bëri jamono koo ciblé koo ciblé jamono ji. eh ma ciblé ngay laaj. ku ma ciblé. Eh, daa ne leen diggante mu doon tegu Thiès. mu doon wax juree ji jëf gën.